voilà mbokk internet yi ñu ngi waat fii nga xamante ni moo di ñaari tali seet ki nga xamante ni moo di booy dakaar ci combat bi mu war a am ak ki nga xamante ni moo di Tmax comme niñ leen ko defale woon bii passé dem seeti ki nga xam ne moo di Tmax mu wax ci li jëm ci combat bi tey ñu ngi fii ci ñaari tali seet ki nga xamante ni moo di booy Dakar pour seen combat bi ñu bi war a am la 4 avril. asalaamaaleykum gannaaw bu buñu sant yàlla julli si yonent bi sant suñu ñaari waajur.

Boy Dakar est-ce que mën nañ xam nan nga nan nga préparer ce combat yi sa digënté ak Tmax waaw nu may préparer sama combat comme yeneen combat rek nu koy préparer rek parce que combat bi jël nañ ko au sérieux jaar fu ñu wara jaar ñu wara jappalé ñu ngi ñu jàppale ñu ngi entraîner nu mu waree waaw may ñuma dara dal Tmax mbeur la comme yeneen mbeur yépp waaw respecté nako jox nako cër waaw dama koy ñaanal yalla fan bu gudd ak wër gu yaram ba bis ba ñu neexal lamb ji bu mu daw nak

parce que dama amone blessure loolu moom teroon beure mais sante yalla alhamdullilah rabbil alamin waaw té max ma ngi koy waajal comme ni moy wadjalé yenen combat yi yàlla ma ci yalla may ndam na waaw donc lan nga mo meuna wax ci ki nga xamanteni mo té max sa adversaire lan moy ak qualité am nan lay beure lan nga mo meuna wax ci moom waaw ah, Tmax mbër la rek comme yenen mbër vainqueur la jambar la jambar la fa deug yalla parce que mom day nexal lamb bëri na ay qualité mais nak qualité fi la fekk bax waaw qualité mi mom fi la fekk bax lu mu mun bëri bëri lumun lu mu mun dor dor lu mu mun xex xex saa yu ñëwee fekk ko fi waaw qualité bi moom mënu ko gis en 100 parce que man sama bos moo ko jéggi waaw. yow yaakaaroon ñëpp nee nañ da nga mën a bëri mbapat lool mais boo xoolee ki nga xamante ni moom moo max dafa ci ak ñoom Sélémélé ay ñoom Ousmane Gandigal ñooñu nga xamante ni ce sont ay amateur la ñoo xamante ni ci bëri simple la ñuy yëngatu nga yaakaar ne loolu du doon problème bu contagé ak ñooñu. waaw da da nga dugg fu garaaw Sélémélé ak Ousmane Kandigaar laale nañ man ak ñoom mais yëpp sant yàlla laale nañ am na fu ñu jaar ak man am naa fu ma jaar ak ñoom waaw kon nag kooku noonu jaaxaluma waaw mel ñoom noiro ñoom ñaari ñoom Sitor ñoom lay entraînandoo ñoom lay contagandoo waaw man ñooñu laa am moom ñooñu la am man ñoom Sitor ak ñoom ñaari ak ñoom euh, noiro ñooñu laa am ak waa Doudou Bakassar yëpp jàpp nañ ci kombaa bi waaw. yow yaakaaroon ni ñoom Sélémélé ak Ousmane Kandigaar bi nga bëree ngëm ba pare am nañ loo xam jàng nañ ko ci loo xam ne mën nañ ko jox mu indi la ay jafe-jafe ci combat bi. non man yàlla dafa ma dimbale man awma jafe-jafe si combat yooyu parce que man yàlla dafa dim euh, dafa def nekkuma nit benn kele gaa dama jàpp nit daan la si benn kele ay multi fois mais saa ñu eggee si bëre finition dana am waaw saa ñu eggee si bëre rek man naa def finition waaw man yoruma benn kele maa ngi mille kele waaw. dafa am sànq ma wax fa laa jógee ñëw fii. Nenam na affaire bi jël dem lay doon day ñew jël li fi nekk yëpp yobale ko yow loolu lan nga ci xalaat. lu mu war a dafa dis de atanu ko atanu ko man dal ma ngoy jox respect tek sama combat fu mu ko wara tek ba jour ba yalla may ma ndam si kawam oui ma ngi ñaan yalla dal yalla may man dam ci kawam. amna wax bo wax da nga ni beure përëx përëx mom yow non ngay beure te mom lool beure tepp del nee na amu ci da nga ñew taxaw mu fekk la fi nga taxaw jël dem. na bàyyi use bi use bi la war a bàyyi na bàyyi use bi Temacé dama la xam te Temacé euh, san yi dama ko ay revanche laay bëre de revanche dafa daan sama doom nday euh, kii euh, faali daan sama rakk ondu la foo daan Siteu moo ko mujjee daan sax waaw ñun ñëpp dama leen war a bëreel kon am na sérieux problème combat bi du yomb na taxaw ñu bëre bëri bu neex man ku bëre man danga danay neex wur na yàlla moom nee na miin na écrit bi xam na fi bu baax yàgg na fee dugg day ñëw dugg rajaxe heure bu ko neexee génn dem waaw ne loolu lay indi loolu lay ñëwaal moo tax mu tuddee ko jël dem. Euh, na laajte ñaata yoon laa dugg Grand Yoff depuis Mbapat ba léegi maa ngi rafal Grand Yoff moom mu ñëw bu ko effacé c'est impossible seen mag yi seen mag yi laa bëgg a dem ba pare damay jàll dem seen mag yi seen grand frère yi pour xam nga raafal leen tëjal tëj leen ñoom ñëpp ma soog a jëm jàll si beneen écrit par épisode épisode la film boo gis dafa am épisode waaw. ma wax la ne le 4 avril dina tàng. dina metti te bu boobaa loo andi rek di nga ko fekk mu andi lu bëri teg ko ci ginnaawam teg taxaw. xam nga 4 avril ñun ñoo ko moom ñun BG ñun militaires yi gaynde yi ñoo moom 4 avril maa ngi woo sama BG yëpp nag waaw suñu OC Iba ak sama maître Ndëri maa leen di woo si combat BG yëpp nañ ñëw ñu ñëw défilé ndànk gagné ndànk ñibbi ndànk incha allah. ñu gis ni Tmax dafa nekk mbër boo xam ne day xeex dafa am rapidité ci combat day xeex day gis. ay dóor ut buntu jàpp yow loolu nan nan nga ko préparé. saa yu ñëwee rek fekk fi lu lu ko gën a piir parce que man je suis à tous les plans waaw man pare naa ci plan yëpp pare naa saa lu mu ñëw rek lu mu wootee rek ma fekk ko si waaw ñun ala cadar la ñuy demee waaw. léegi tey ñu combat bi nekk bis boo xam ne Dieye Production moo ko tëgg mu nekk le 4 avril nekk suñu bisu indépendance tey boo bëree ak ki nga xamante ni moo di Tmax

vraiment mu ngi may gessu duma tëgal combat chaque jour dama wax fils dama bëgg nga bëre dama bëgg nga bëre ay ñom père jaxat dañuy japp ci combat bu baaxa baaxa baax vraiment content na ci trop trop waaw content na ci. combat bi bu la ci yalla maye nam fan nga xalaat ni fa la mën a ci sa carrière lamb waaw parce que man so gisé ma jël combat bi khat bu may wo jox na ma quatre adversaires ñu ñëpp dañoo bañ bu ma euh, sama dernier coup de fil lama wo mu ne ma boy Dakar si ko grawul yow loo def baax na wóor na yàlla teguma ci benn baat loo def baax na mu jox ma Tmax ma jël ko te ma Tmax bokk ñu semee Tmax daanu daanuwaat man ñaanu ma ko yàlla wala suy am yàlla na yéex musuma daanu ba léegi sept combat sept victoire bi mooy sama huitième combat te incha allah le 4 avril 2019 ndam day nee na am na lu ma waxaat leneen nee na ma 2019 bi mooy année ñi nga xamante ne ñoo musul daanu nee na wa limal na ma ay mbër yu bëri yoo xam ne mosuñoo laal suuf ku ci mën ni rëg-rëg ak Gris su ñoo laal suuf moo tax mënum nee ne 2019 yow mooy sa année bi nga xamante ne ci la lay daan rëg-rëg ak Gris 2 la wax ñooñu noonu ak man bokkuñu ñooñu ay poids lourd nañ man poids léger la man eggagumañ si ñooñu saa yu ma eggee si ñooñu dina ko coûter très cher wala ma romb ko sax fekk dama ko xool waaw léegi ci côté mobilisation yow ak say mbokk say am di jàmm ak ñi lay dimbali fan ngeen toll ci côté mobilisation ak lan nga nar a yóbbu stade le le 4 avril allah. Mm. avant ngeen may woo léegi léegi marché laa jóge sama gars yi ñoom musaa Sarr Assane Sarr ñuy jënd billet jàppale nañ ma si ñu ngi si bu baax ñoom père ñu may jàppale ñoom père jaxate sama papa ñoom ñaari at gars yëpp a ngi may jàppale bàyyiwuma kenn waa FBD AJDS bàyyiwuma kenn waa ko ñu waalo onze jaabul bata ñoom ñëpp waa Kaolack ñoom dañuy ñëw amdi di sama papa am <laughs> waaw kooku tamit day jàpp si combat bi bu baax a baax waaw père lay ñoom ñëpp dañuy jàpp si combat bi billaa wallahi ñom ñep dañuy jënd biye ñu ñëw stade inshallah allah waaw waa Colobane ñoom Pafal gaay yep waaw wa ko ñu walo gaay yep ñu ngi leen di waaw ñu ngi leen di wo ci combat ñu gën see japp bu baaxa baaxa baax waaw. yow ban yobante nga am bo jox sa adversaire max pour le 4 avril. wa sama yobante moy yalla ñu yalla may fan bu gudd ak wër gu yaram ba bis ba ñew neexal lamb ji yalla may mandam ci kawam ma dem ñibbi.

day fees dell incha allah waa alaa cadar yëpp dañuy ñëw mu ngi gërëm euh, staff bi yëpp ñu ko joxatee Mbaye Faye sama coach coach box vraiment sama papa la waaw Faye Birame waaw ñoom ñëpp bàyyiwuma kenn Pierre sama doom day yàlla na ko yàlla may ndam ci combat ko yàlla may ak keneen koo xamante amul combat yàlla na ko yàlla may combat ci barki Seydina Mohamed waaw maa ngi woo Ndeye Sali Diop Dieng tata Ndeye Sali maa lay woo bu baax sama combat bi waaw waaw maa ngi woo ñëpp di woo Jean Baptiste Diouf ñu jàpp ci combat bi docteur maa ngi woo waa Guinée waa Malifara waa Casamance waa Kër Omar waa Kaolack yëpp ma kenn maa lay woo waa Kër ma jëbel Kër Soose Caawando saama Tukulóor waaw Kavil Koutal ah Koyalal Moussa Boy euh, nu mu tuddati sax oh, nu war a ñëw dañoo bëri dañoo bëri billaay wallaay gars yi dañuy ñëw waa Latmengue ma Makumba Makumba Diouf maire de Latmengue maa ngi koy woo bu baax a baax a baax a baax waaw ma woo naa ñëpp ñoom musaa Sarr nañ gën a jàpp ci kombaa bi ñu ñëw mobiliser wu waaw maa ngi woo autorité yu nekk suñu waaw suñu secteur bi yëpp bàyyiwuma kenn waa ñaar tali waaw gars yi bàyyiwuma kenn waaw maa leen sant di leen gërëm waaw waa Grand Dakar waa Jànkalaar maa ngi woo sama mag Lac Rose booy Boy Bambara maa leen sant di leen gërëm nañ ñëw si combat bi jàpp ñu Tafa booy Bambara saalum 2 maa leen di woo waaw Saloum waaw waa écrit ba ma kenn waa écrit moom samay samay nit lañ ñooñu moom su ma nekk fi sax di wax day gën a gudd rek mais ñooñu samay nit lañ ñoom ñëpp woo naa leen damay def open press samedi incha allah ñoom ñëpp nañ ñëw waaw samedi incha allah rue Waalo nañ ñëpp ñu nañ ñëw jàpp ci affaire bi waaw maa woo waa États-Unis tamit waa Brésil sama papa seex na na ñëw jàpp ci combat bi bu baax a baax ñoom Bala Sangaré nañ ñëw waa Brésil Seydou Ba Seydou Ba maa lay woo. nga jàpp ci kombaa bi bu baax a baax a baax Serif Ndeye Fatou waaw maa lay woo nga jàpp ci kombaa bu baax a baax a baax waaw maa ngi woo ñëpp ñëpp képp koo xamante ne moo ngi diaspora ba rek maa lay woo ma kenn wasalaam